Kulli nafsin sayihatal lay mawti. Ngani? Hmm? Ngani? Kulli nafsin sayihatal lay <laughs> mawti. yooyu yow yow lii alxuraan la wala si na. soo ma fekkee ma toog doo ma naan xujju toog di ma xool rek. asalaamualeykum asalaamualeykum wala bul wax ak moom. asalaamu xabla kalaam. cagas dafa am loomu abaloon mu dox suñu diggante mu buggoon rak nga may ma temps tuuti ma gën a lijjanti xaalis bi may jox la ko ndax Mbacké Diouf nee dina ñëw Cheikh Diouf sama suñu Sénégal te ma nee na dina ñëw. papa fayoon naa bi xoromam nag. ban naar moo ma lebaloon xorom. yow yaa <laughs> euh, doom yi neex la am nag <laughs> nee na lebaloo fayoo naar bi xoromam kay <laughs> yow loo lebal sa baay. Eh, tey man nag li may xaar nii mënut a àgg foofu de kaaw. bilaa ginnaaw ay jàmm waaye ginnaaw jàmm ay parce que fi ne nii bu lu neex amee bu subaa bu lu naqari amaatee xam ne noonu la àdduna tëree. yaa ngi man nag du ma kaf du ma ree ndax xaalis ku koy laaj boo bu sa kanam gajafee duñ la jox. waaye taxaw ma doom moo tax bu fekkante ne nii maa ngi fii sa papa bi muy seetal seetam bi lu nekk def nga ko si seet bi lu nekk def nga ko man mënuloo si man mën nga si sa papa cinq cent mille un million mënoo si man cent mille par an abadaay xeexal naa la lu nekk xeex naa lu nekk waaye dara